waaw asalaamaaleykum sunu mbokku téléspectateurs yi ñuy seetaan à travers Thiès Média tey na dañu am mbégte ak contentement euh, di dalal sunu gan goo xamante ni mi ngi jóge ba bitim réew ñu di ko woowee aadama euh, muy dund nag loo xamante ni lu lu lu ama am euh, problème la loo xamante ni lu ñu mënul nettali fenn. lu ko moom mi nga xamante ne moo ko dund kese moo ko mën a expliquer mu jóge nag euh, France uniquement pour ñëw waxtaan ak ñun ci li nga xamante ne moom lay dund foofu noonu amaana sax am na ñeneen ñu koy dund ñoo xam ne mënuñu koo expliquer moom ginnaaw ak yàlla dogal na moom mën na ko expliquer xanaa duñu def rek lu dul bàyyi ko moom it mu daal di euh, présenté wu ñu daal di dugg ci émission bi soxna si def. maa ngi fi rek savance va salaamaaleykum wa rahmatulahi wa taala wa barakaatu. man euh, France laa jóge comme mu si gisee ni mu ko waxee rek euh, maa ngi dund lu metti foofu parce que même euh, journaliste yi nekk foofu yëpp bind naa leen mais kenn répondre ma ci dem naa tim police kenn répondre ma ci donc ma ne kon xaaral ma ñibbi si fii Sénégal expliquer sama problème peut-être bu boobaa waa France dinañ ci jóg def ci dara voilà comme ni mu ko waxee rek damay ñëw fii expliquer suma problème comme ça waa France dinañ ci euh, euh, euh, dinañ ci àddu kàddu dinañ ci wax mu nekk nag soxna si loo xam dañu bëggoon nga expliquer ma. li xew dëggantaan na lan ngay dund foofu. man daal li may dund foofu mooy fi ma dëkk dama toxu dem foofu depuis bi ma fa demee toog naa trois mois amu fa amuma benn problème ci kër ga mais quelque temps après bon sama jëkkër menacé woon na ma. né na ma euh, de toute façon amna façon yo xamné dañ koy ray nit te kenn du ko xam depuis lors daal euh, dama am yo xamné day joggé ci kaw di wàcc sama kaw par n'importe quel moment de la journée aussi pendant la nuit surtout je suis obligée dama obligée jël euh, parapluie di ko teg sama kaw pour pour nelaw mi ngi noonu parce que yu ay yu weex la yu wodd di wàcc bu ma sàngoo xamné dafa melni ni impair la nga dégg bruit bi boobu muy wadd ci euh, affaire bi donc euh, dem naa police wax leen ko ma ne leen dama bëgg a porter ñu ñoom ñu bañ mu ne loolu c'est pas la peine ñuy porter plainte ñu naan ma poussière la mais poussière buy wodd bu guddee même boo sàngoo dara lu mel ni impermiable ak yooyu euh, du bu ciy wadd du def bruit tandis que lii buy wadd day def bruit man daal damaa defe ne foofu ma dëkk dañ ma fa bëgg a jëlee loolu moo tax dem naa police nag police deful dara. Madame tribunal bi nek fofu à côté tribunal bi defuñu dara mais man nak manuma continuer ci li du baax bi ni ñi def fofu rafetul xam nañ ne xel euh, si sen niñ koy waxe claquage lañ koy tudde may claquer sama bi bu bop bi sans bop bi day day metti aussi sama mais ça fait combien de temps bi nga vous ça fait euh, combien d'années foofu ça fait depuis 2018 la fa la fa laa fa depuis 2018 au début les six premiers mois amuma fa benn problème Les euh, dal dama toog après quelque temps après sama jëkkër ji bi ma menacé rek affaire yi commencé euh, yo sax buñ koy def au début doko ko sentir ci sa bop bi doko sentir seulement que dama commencé di am ay infection di am ay bop yu metti yu bari bari bari di am euh, sama yaram bi di génn ay genre jàngoor yoo xam ne daal c'est pas normal bu ma def naa benn analyse euh, def naa ay radiographie pour sama bopp bi ñu ne ma dafa am benn blessure bu fa nekk te blessure bopp bi ma dëkkee sama beneen kër ga awuma ko te man guddi bu jot bu ma tëddee di nelaw maa ngi dégg bruit bu jóge ci kaw bu ne buum affaire yi soog a wàcc sama kaw mi ngi noonu loolu moo ma jaaxal. waaw loolu moo la jaaxal parce que aussi c'est c'est c'est un peu compliqué nekk na loo xamante ni tey ji amaana soo koy wax ñenn ñi mënuñu ko xam mais yow dund nga ko jox nga ma ay image jox nga ma li nga xamante ne ay vidéo yoo xamante ni nii lépp di de gisal naa ko sama bopp man moo tax ma mën a jàkkaarloo yow te di wax ak yow mais tey ki ngay wax ni que sa jëkkër la woon te mi ngi lay menacé mm. actuellement yéen a ngi nekk ba léegi wala yaa ngi koy gis wala ngi koy dégg ba léegi parce que moom sax Espagne la dëkk man France France la nek mais euh, dafa yore won euh, sama dombu goor bi ak man sama ak France mais dañu séparé won ni euh, divorcé guñu won mais à la fin comme une séparation bi dafa yag mané ko man dama bëgg vraiment ñu def divorce bi mo gën parce que man bëggatumako mi ngi légui nak mom Je apparemment mi ngi may bëgg ba légui la man dama défé peut-être dafa fay ay nit pour ñu def ma lii parce que bi ma toxoo fi ma appartement bu bees bi dafa wax sama doom bu jigéen bi foto appartement bi yëpp foto ko yëpp nga envoyé ma ko sama doom bi wax ma ko ma ne ko non bul def benn foto bul envoyé dara yenn saa yi dafa daan toog euh, di ma woo di wax ak man parce que bu may wax ak moom par téléphone ndax xale yeeg yooyu mu naan ma waaw maa ngi lay surveiller par Google ak di wax lu nekk di ma envoyé ay message genre message bu nekk di ma ko envoyé. moom loolu bi mu ko defee yow est-ce que bi nga demee euh, euh, euh, police est-ce que déclaré nga ko yii yëpp est-ce que wax leen ko wax nga leen ko ñoom. yii yëpp wax naa leen ko wax naa leen sama jëkkër bi nekk Espagne daf ma sama ex bi nekk Espagne daf ma menacé mais normalement France boo demee ci police yi am tu as le droit de faire un main courant. lu ñu naan mais courant loo xam ne da koy bind li nga wax yëpp dañ koy bind yow nga signé ko mais ça veut pas dire que euh, yëf yi dina mën a peut-être egg fenn mais au moins di nga bàyyi benn trace boo xam ne def nga loolu mais euh, policier bi ne ma non euh, d'accorduñ ci loolu ma ma ne leen lu tax sama sama droit la ñu bañ ma ma ma kon bëgguñu ko woon def ma bàyyi ko noonu dem. ma daal di bind euh, maire bi nekk ci bula bi Boulogne Billancourt explique ko sama problème lii xew foofu mu envoyé ñaari nit ñaari nit yi ñëw xool ci appartement bi ñu ne appartement bi dañ dara nekk fa ma ne leen li ma lay wax dama dañ may agressé te ci kaw lay jóge ah ñu ne ma ñun de pour le moment fii ñu toog ni gisuñu dara daal di dem mu ngi noonu man ti ma xool xool yëf yi ba ba ba xam daal ñëwoon naa fi sax euh, mois de mars de euh, mois de mars dernier. Euh, essayer tamit euh, def enregistrement mais à la fin ça n'a pas abouti mi ngi noonu parce que joxoon naa ko benn waay bu nekkoon ci benn chaîne sax bëgguma tudd tudd bi mi ngi noonu donc à la fin euh, ça n'a pas abouti c'est pour ça sax ma dellu siwaat nii vraiment que monsieur Guissé di ma ci dimbale parce que sama benn mbokk moo ko wax problème bi vraiment mu xa ma envoyé ko image yi mu gis ko ba pare daan ne vraiment dinaa la ci dimbale vraiment mu ngi noonu voilà merci beaucoup Adama mi ngeen gis ni moy euh, suñu gan gi ñu dalal tey jii ci euh, Thiès Média mu nak nek problème bo xamanteni ni dañ koy partager ak mom partager ko aussi ak ñi nga xamante ni euh, population sénégalaise cri de cœur lañ ko tuddee parce que faaw ñu wax ko ba ñepp yeko mais Adama est-ce que yow jàppaloo ni lolu racisme dam ci dugg wala wala yu mel noonu. Ah, man dal lima lima ci lima ci xam dal hmm, fofu ñu nek fofu bu lañ bi yànkul dañuy euh, affaire yi raciste tuuti xarana ci mu ngi noonu pour lan may wax loolu parce que am nañu yay jigéen africaine yi ma gis foofu ñuy wax paare naan fii daal moom euh, ñoom ci droite bi la ñu bokk ak yooyu bëgguñu daal euh, ñin di ñuul pourtant foofu ay ñin di ñuul nekk nañ fa ay naar nekk nañ fa ay yeneen genre xeet nekk nañ fa mais dama defe ne dañuy ciblé ñin ñi dañuy ciblé ñi ci loolu xam naa ko sax lu tax may wax lii xam naa ko même si en question administrative bi dañ lay euh, boo demee nga soxla dara dañ euh, dañ lay def yu sew sew sew sew sew ci ci biir mu ngi noonu loolu moom dund naa ko fa xam naa ko fa moo tax daal ma bëgg euh, wax surtout bu fekkee ne autorité français yi jot nañ ci vidéo bi ku ñu contacté ma man parce que li may def man dama koy def clair et net te amuma benn nekk di raconter ay yoo xam ne amul ñu contacté ma wax ñom pour ñu bàyyi yu sew yoy ñuy def nit ñu ñun parce que nit ku ñul ñuul dafay nekk liguey liguey liguey liguey liguey liguey liggéey ba heure retraite tem jot sa droit yi ñu la war a jox euh, ça pose problème mi ngi noonu vraiment sonn nañu sonn nañu trop en tant que euh, diaspora bi fa nek tim sonn na mi ngi noonu Voilà, merci beaucoup, chers, euh, chers amis euh, téléspectateurs, vous qui nous suivez via notre euh euh, télé Thiès Média. Donc aujourd'hui, on a un immense plaisir d'accueillir euh, sur notre plateau euh, Adama Mbaye qui vient depuis la France. Et elle a eu aussi des problèmes qu'elle voulait exactement partager avec la population sénégalaise, voire même le monde entier. Donc on va la laisser quand même se présenter et expliquer nous aussi réellement ce qui se passe. Ben, ce qui se passe réellement euh, en, France, c'est qu'il y a des injustices sociales. Ça veut dire que toujours vous faites man, man euh, ah, ah, hein? français. Il y, a, il y a des injustices sociales. Pourquoi Parce que je suis, ça fait euh, depuis 2018, j'habite dans un immeuble HLM. Et dans cet HLM, je suis agressée. Je suis vraiment agressée. J'essaye de faire tout mon possible. Je suis partie à la police. Je voulais faire un mécourant. courant et on m'a dit que non, le mais courant, ce n'était pas possible. Oui, on m'a dit que le mai courant, ce n'était pas possible. Et j'ai écrit à Monsieur le maire, Monsieur, Christophe Baguet. Quand je l'ai écrit, il m'a envoyé deux femmes qui sont venues regarder la maison, s'il y avait une insalubrité ou pas. Mais ils ont dit qu'il n'y avait rien. Et eh, je les ai dit que je suis agressée. Ils me, me disent, oui, écoutez, euh, euh, je vous conseille euh, de ne pas porter plainte, parce que si vous portez plainte, que peut-être que vous allez avoir des problèmes à cause de que vous allez payer tout le jugement. Je l'ai dit non, ce n'est pas une question de jugement ou pas, c'est une question qu'on est en train de m'agresser, c'est moi. On est en train carrément de me claquer. C'est dans le jargon qu'on dit on claque, c'est ça. Quand je dors euh, dans ma chambre ou que ce soit dans le salon, je suis obligée de prendre un parapluie pour me protéger la tête parce qu'il y a des choses qui tombent du, du, toit. Et ça, ça me fait mal. Quand ça se met en contact dans ma tête, dans, sur mon cuir chevelu, ça gratte. Et des fois, il y a un gros boom et ça me fait très, très, très mal. Donc, j'aimerais bien que les autorités françaises se mettent en contact avec moi pour pouvoir régler ce problème. Parce que j'ai le droit de vivre dans ma maison, comme tout le monde, sans aucun problème. Et je n'ai aucun problème, moi je ne me cache pas, je dis la vérité. Ça fait longtemps que je suis en France, je ne vois pas pourquoi je vais attendre jusqu'à maintenant pour créer des problèmes. Dans, là où je vis, à Boulogne-Billancourt, on est en train de m'agresser, sérieusement. Voilà. Et les logements qui, euh, qui, qui, sont là-bas, c'est des logements administratifs ou bien Non, c'est des logements, disons, sociaux. C'est par exemple quand quelqu'un qui touche, euh, qui a moins d'argent, elle peut, euh, elle peut pas se loger dans les autres appartements pour payer. On te donne, euh, on te donne ces logements. Moi, dans ces logements-là, j'ai attendu presque 10 ans. 10 ans avant qu'on me donne le logement. Et quand on m'a donné le logement, tout était bien. Les six premiers mois, je n'avais aucun problème. Et puis tout d'un coup, ça survient ce problème-là. Je pense qu'ils le font pour que je sorte de là. Mais moi, je ne veux pas sortir. Ce que je veux, c'est que les autorités françaises me, se mettent en contact avec moi, parlent avec moi, je leur explique le problème parce que j'ai des, des, preuves médicales. Donc j'aimerais bien que cela cesse. Voilà. Mais quand tu étais à la police, euh, qu'est-ce qu'ils t'ont dit Tu n'as pas le droit de porter de plainte ou bien euh, Oui, la police, quand je suis partie là-bas, je les ai dit que j'étais agressée chez moi. Quand c'est comme ça, tout le monde, tu as le droit même si euh, tu as le droit à faire quelque chose qui s'appelle un main courant. Alors j'ai dit au policier, je voudrais faire un main courant parce qu'on m'agresse. Alors le policier m'a dit, non, ça ne va pas être possible. Je lui ai dit, mais pourquoi je ne peux pas faire ça il me dit non, ça ne va pas être possible. Alors je l'ai dit, est-ce que parce que je suis noir je l'ai posé cette question. Mais, mais, Adama, quand tu me parles d'agression, c'est quel genre d'agression Parce qu'il y a certaines personnes, il ne peut pas savoir c'est quel genre d'agression c'est pas, pas, verbal, c'est des actes. c'est pas verbal. C'est-à-dire, c'est des actes. Je suis chez moi, assise, et j'entends des bruits en haut. Et puis tout d'un coup, j'entends un grand boom, une boom assourdissant qui tombe. Et quand je reste comme ça, moi, je ne sais pas si c'est des produits chimiques ou pas, parce que je ne vois pas ce qu'on est en train de me jeter. C'est des produits chimiques ou pas. Euh, ça quand ça, ça se met en contact euh, sur mes cheveux, ça commence à, gratter très fort. Et des fois, quand, ça tombe aussi, ça me fait du mal. Ça rentre jusque dans ma gorge, je suis de la tête jusqu'à la gorge, ça me fait très, très, très mal. Moi, je crois qu'on est en train de me faire un claquage. Voilà, c'est ça. Donc, euh, j'aimerais bien qu'eux, ils font quelque chose parce que je trouve que ce n'est pas normal. Et la police, son rôle, normalement, c'est d'aider et de surveiller, et, et quand on leur dit quelque chose, de vérifier ce qu'on leur dit. Mais ça n'a pas été vérifié. Ils n'ont rien fait. Ils m'ont laissé comme ça. Mais, apparemment, tu as eu des problèmes avec quelqu'un pour qu'il puisse euh, t'agresser ou quoi Non, moi là-bas, quand je suis partie vivre là-bas, je n'ai eu de problèmes avec personne. Je n'ai eu de problèmes avec personne. Euh, ce qu'il y a, je crois que dans la société française maintenant, il y a trop d'injustice sur les immigrés. Il y a trop d'injustice sur les personnes euh, de couleur, tout ça. Donc, euh, je voudrais que cela cesse parce que c'est pas normal. Parce qu'en plus de ça, quand on t'agresse comme ça, ils, eux, ils te prennent comme si tu es folle. Ils te disent, oui, euh, il faut aller prendre des médicaments, vous n'êtes pas bien, vous êtes, vous êtes en train d'halluciner. Moi, je n'hallucine pas. Et je vous dis que depuis que je suis ici, euh, que je suis venue au Sénégal, ces choses-là, si c'était quelque chose qui était sur moi, ce serait manifesté ici. Pareil. Mais ici, je n'ai aucun problème. Je ne me protège pas la tête ni rien du tout. Il ne se passe rien du tout. Cependant, quand je vais là-bas, que je rentre dans ma maison, les choses euh, continuent. Je suis obligée de me mettre, pendant la journée, je suis obligée de me mettre une casque sur la tête. oui, une casque sur la tête pour me protéger la tête. Et euh, ici, je n'ai pas besoin de casque, je n'ai rien du tout. Donc là, je pense qu'il y a un sérieux problème. Puisque tu es, de nationalité euh, sénégalaise, franco-sénégalaise, mhm. Euh, pourquoi tu n'es, tu pas allé euh, à l'ambassade du Sénégal ben, À l'ambassade du Sénégal, je suis allée. J'ai vu même le, le consul. J'ai parlé avec lui, je lui ai expliqué, je lui ai dit que j'étais agressée chez moi, il se passe des choses vraiment qui n'est pas normal chez moi. Lui, il m'a dit, vraiment, il m'a bien reçu tout ça, mais il m'a dit d'aller voir la, les policiers dans un commissariat. Il me dit, il m'a, il m'a dit carrément, il y a un commissariat ici à côté. Tu peux aller voir là-bas. Mais le problème, quand ça se passe des choses comme ça, je pense que eux aussi, ils devraient mettre un peu de d'aide un peu. Parce que si les autorités françaises ne veulent rien faire, et eux, eux ils ne ils peuvent rien faire, ça veut dire que la personne va être tellement désespérée que peut-être il peut se passer quelque chose de très grave. Donc, quand je suis partie la voir, il m'a dit, écoutez, allez dans un commissariat, ici à côté, moi, je ne peux rien faire. Je crois qu'il peut faire quelque chose quand même. Quand une personne est, désespérée, une Sénégalaise qui vient, que ce soit franco-sénégalaise ou bien euh, sénégalaise, il faut qu'eux aussi, ils avertissent. Parce que je suis sûre que s'il avait pris son téléphone, il appelle à monsieur le maire, peut-être ça, les, les agressions se seraient cessées. Mais ça n'a pas été le cas. Malheureusement, je me suis retrouvée démunie, toute seule, en tant que, côté français que côté sénégalais. C'est pour ça même que je suis venue ici pour dire, moi, euh, je, vais faire un euh, lanceur, d'alerte pour essayer d'alerter toutes les gens que quand il se passe des choses comme ça, qu'on les claque dans leur maison, parce que peut-être qu'ils le font pour que je sors de la l'HLM, c'est pas normal, c'est pas bien. Que aussi, ils font quelque chose. Voilà. Parce que peut-être qu'ils font ça à d'autres personnes et ces personnes-là, ils ont peur de parler ou tout simplement, ils n'ont pas les moyens de trouver quelqu'un qui peut les aider. Voilà.

pour ce que que ce soit tous les Africains yi nekk foofu bu ku problème un problème bi nous manque mënti demee boo demee ci autorité française yi autorité français yi beaucoup bëgguñu la le demal ci autorité sénégalaise yi maa ngi consulat bi ambassadeur tout ngir yàlla ak bi bis bu problème amé nañ ci jóg wax ci parce que c'est pas parce que euh, ñun bu féké ñom dimbalé ñu ñu fofu té l'ambassadeur normalement c'est pour les gens qui sont là-bas que quand ils ont problème normalement c'est pour ça qu'ils doivent nous nous aider ils peuvent pas nous laisser démunis comme ça voilà et aussi euh, ñoom it euh, sénégalais bu nek bitim réew bu genre problème bu mu am nako ko dénoncer buñ ñu bàyyi toujours français yi di def lu len neex du texte une loi, nous aussi on a le droit de revendiquer. Nous aussi on a le droit de parler. On a le droit de am le droit bo xamné ne wax ne lii ñi ñu koy def du yoon Ñepp am droit bobu. te man sama droit bobu, je vais l'user jusqu'au bout Dina ko user jusqu'au bout parce que li normal. voilà

Euh, audace su génn ci écran bi nii wax ko jooytu parce que mi ngi waxal ñenn ñi nga xamante ni euh, seen baat egsiwul foofu mu mm-hmm. ngi leen di waxaaleel kon nag ñu ngi wax également euh, sunu autorité yi nga xamante ne ñu ngi ci biir dëkk bi ak nekk bitim réew ci mm-hmm. consulat yeeg ambassades yi nañuy dem di nemmeeku mm-hmm. ñi nga xamante ne mooy sunu doom yi nekk bitim réew nañu aussi seen problème nañ koy jël di ko traité comme il faut parce que ni ku nekk aussi am nga droit xam am nga droit aussi dund Euh, convenablement euh, ci dëkk ba nga nekk. loolu la doon jotu tey dinag ñu leen di jox euh, dig daje ci beneen émission incha allah.